برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينام ماغي فاتلي سما فاتلي يانيال ماغي فاتلي سما alquran ñëw. li tax alquran ñëw. ndax yàlla yónni yonent. li tax yàlla yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ndax yàlla yónni mboolem yonent yi ko jiitu woon. li tax yàlla yónni mboolem yonent yi ko jiitu woon. ñoom ñëpp bañ ñëwee benn wax rek lañ santaane. ñoom ñëpp ko biir dikkee benn wax rek lañ santaane. jaamu leen yàlla ragal leen yàlla. jaamu leen yàlla ragal leen yàlla. topp leen ma man yonent yàlla bi. topp leen ma it. waaw ñun bunt bu nekk wax na ko. ittaqullah wa atiuni ñoom ñëpp loolu la ñuy wax. yonent bu nekk wax na leen. toppal leen ma ragal yàlla. ragal leen yàlla te topp ma. ragal leen yàlla te topp ma. ndax ragal yàlla. ndax ragal yàlla. ci biiram toujours dama leen di wax mooy topp ndigal bàyyi tere. caabi yi lépp loo xam ne jàmm sax na ko ci àddina ak alaaka. ñaari caabi yi lépp lu jàmm soxla fii ci àddina ak alaaka. ku bëgg xam-xam na ragal yàlla ku ragal yàlla yàlla may la xam-xam. ku bëgg xam-xam na ragal yàlla ku ragal yàlla yàlla may la xam-xam. yàlla wax na ci alquran wa taqullaha wa yuallimukumullah ragal leen yàlla yàlla xamal leen. yàlla wax na ci alquran. nekk wali yu nga ragal yàlla. ku bëgg a nekk wali yu yàlla ragal yàlla. yàlla wax na ne alaa inna awliyaa llaahi laa xawfun alayhim wa laa hum yaxzanuun allaziina aamanuu wa kaanuu yattaquun ragal yàlla mooy maay wilaaya. yàlla wax na ne ragal yàlla moo di mayu wilaaya. su bëggee aljanna aljanna yàlla wax na ci ne uiddat lil muttaqiina. aljanna yàlla xaroon na ko ñu ragal yàlla. aljanna yàlla wax na nag xaroon na ko ñu ragal yàlla. su bëggee mbëggeel ak yàlla te yàlla ku mu bëgg rek nga nekk di ci ko dina taxaw dana musal ci safara ñu ragal yàlla. ku bëgg a mucc ci safara yàlla na la gën a mën a ragal yàlla ñoo ñooy ak mucc ku nekk ci tat la ca maare wërsëg loolu yi ragal yàlla ak maay mu ne taqi laa yàlla nekk daa ku nekk wattaqillaaha yaj'al lahu min amrihi yusra ku ragal yàlla yàlla defal ko jàppandi ci mbiram. ku bëgg jàppandal alquran digalam yépp mooy ragal leen yàlla loolu moo tax alquran digalam lépp mooy ragal leen yàlla jaam daal su ragalee yàlla jaam bi boo ragalee yàlla di fuuglu yàlla di fuuglu yàlla maanaam di ko fàttaliku ci sa xol daa maanaam di ko fàttaliku ci sa xol daa man koo toll koo nekk ba koo ko teew kon yow li la war sa diggante sa borom def nga ko kon tey yow li la war sa diggante borom def nga ko li war borom bi moo def moo barhaamu baa'un waraa'un alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan